sama gaa nuyu naa leen la borom masque tey message bo important laa am bu may adresser Ousmane Sonko bu fekkee ni am na ay nitam ñu may déglu suñ ko jotali message bi dañ ma ko jotali Nda allah ndaxte message urgent bu nga xamante ni dama koy à la vigilance Ousmane Sonko maa ngi lay à la vigilance attention attention attention maa ngi lay à la vigilance et à la méfiance Makisal le mot parvenir dit obtenir par la force mu ngi bëgg ou si douceur pour pour obtenir ko ci ce qu'il n'a pas pu obtenir par la force il veut l'obtenir par la ruse daf la bëgg a teg pour obtenir li nga xamanteni il utiliser na doole façon bu nekk sa kaw amul résultat bu mu ci bëgg quel est le résultat est-ce que Makisal est parvenu à ses fins jamais donc nu ma utiliser na toutes les forces bu nga xamanteni à sa disposition pour neutraliser la Ousmane Sonko à savoir nous cité de bu ñu parce que la mémoire est là pour que nous rappeler wu li xewon après té soga a donc à savoir Macky Sall lum la def yépp ma cité ko ñëpp bàyyi ci xel te ken bañ ko moi moy lan premièrement accuser la viol yow Ousmane Sonko Macky Sall tilimal na sa réputation mettre en prison ses leaders et ses militants rey ses militants des jeunes sénégalais traumatiser sa famille Toucher sa cœur avant que commencer di à sa cœur sa auto bi la sa auto, Toucher sa cœur ensuite Joïlo say Dom, Joïlo say jabar Joïlo sa yaï. empoisonné la pour Diem la rey Hospitaliser la pendant des jours nga nekk ci hôpital tout ça Macky Sall la ko teg séquestré la pendant 55 jours si sa bir cœur jóge jóge tëj la kaso accuse la terroriste mu subir la grève de la faim bu metti bu nga xamanteni sa bakan mënoon na fa des japp dissoudre sa parti Empêcher la nga présenté aussi élection bu fekkee ni am détail yu ma faté s'il vous plaît yen ñu si commentaire rappelez rappelé mako. ma l'en ma détails en ordre comme ça si benen vidéo si benen vidéo bu may def ma indi yeneen détails nga xamante cité wu ma fi. fii teg la loolu yëpp te ñu rey xale yi ba ils sont impunis kenn mosu taper le petit doigt ñuy continue di rey xale jusqu'à jusqu'à maintenant récemment la ñuy rey yeneen trois xale yi ñi nga ils se battaient pour le Sénégal Macky Sall tek lolou yëpp askan bi ak Ousmane Sonko donc utiliser tous les moyens sans pour autant parvenir à ses fins bu fait ni Macky Sall moyens yu mu utiliser ni yëpp yu ma cité ni neutralise réussir neutraliser la te du la musa dialogue c'est parce qu'il a échoué lamentablement il a utilisé tous ses moyens amul benen moyen bu ko desee lu amone yep comme arsenal génnee nako mais il n'est pas parvenu à ses fins maintenant qu'il a échoué Macky tout à coup mu si dialogue yo Ousmane Sonko parce que soi-disant Mom il se soucie de tes intérêts tout à coup all of the sudden tout bêtement Macky Sall il a eu de meilleurs sentiments pour Ousmane Sonko il se soucie des intérêts de Ousmane Sonko attention attention attention c'est un piège Ousmane Sonko Macky Sall baaxaayam bu mu am envers toi c'est un piège lu mu munul am si buntu bi mu ngi koy jéem a am si fenêtre bi maanaam lu mu munul obtenir ci doole mu ngi koy bëgg a obtenir léegi si jaay muus si teg xel si teg deal donc il faut faire très très attention fan yii yëpp ay nitam ñu ngi inondé plateau télé yi. pour dire à la face du monde que dialogue bi si intérêt Ousmane Sonko la nek maintenant Nous xam nañu lu baax pour Ousmane Sonko tout à quoi hein, nous nga xamanteni c'est les gens qui le détestaient le plus au monde luñ ko gëna a lu gëna a ci luñ ko yéene dee ñoom actuellement ñu ngi ne dialogue bi c'est pour l'intérêt de Ousmane Sonko ñoom ils défendent les intérêts de Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa war a dem wuyu si dialogue boobu no d'après lu ñuy wax inondé chaîne télé yépp jaar fu nekk di ko wax waaw léegi ñoom ñoo gën a apprécier Ousmane Sonko ñoom ñoo gën a bëgg les intérêts de Ousmane Sonko apparemment ñoom c'est les nouveaux amis de Ousmane Sonko méfie-toi Ousmane Sonko méfie-toi car sa ennemi comme Macky Sall du musa nekk sa xarit ku la yéene woon il y a quelques jours de cela ou bien il y a quelques mois de cela du transformer ou du transformer ou muk muk muk, yene la jàmm ci moment bu ñu toll nii parce ñu ngi wo dialogue Ousmane Sonko déglul de ñu dialogue parce qu'ils sont cernés de partout ils sont cernés de partout amuñu belle porte de sortie té yow lañu bëgg utiliser légui comme porte de sortie pour sauver sen Bob, jamais de la vie jamais si sur le peuple sénégalais nous moyen de sortie yow que nous utiliser pour servir de moyen de sortie Waouh. Ndarte, il faut qu'on se rappelle d'une chose kuy lab lu mu gis si accroché pour sauver Bakanam. mu doon feuille morte bu nga xamante ne mënu ko sauver ça, dina ci accroché ku ko wagn bu tang sax wagn bu wagn bu tang dina ko téye pour djéma sauver bakanam lolou lañuy djéma jéem ah. ces gens là essaient de se sauver par tous les moyens de tour Ousmane Sonko lañ bëgg utiliser pour se sauver il faut faire très attention très très très très très attention donc message bi moy le grand Niancho Ousmane Sonko le grand guerrier des temps modernes bi nga xamante guerrier yu c'est après leur mort qu'on a reconnu leur mérite Yo, tout le monde reconnaît tes mérites au moment où Yangi ngi donc c'est le moment de les conserver Ça mérite yo noonu bu ko mus beaucoup de bu ko mus a caaxaanee te c'est acquis parce que ces gens-là ils feront tout pour mal sa der lu un rôle. si violence dinañ ko jéem obtenir ces ruses soxlawoo di dialogue non au dialogue non au dialogue non au dialogue élection règle. Élections, nous nañ ko maintenir si date bu nga xamanteni mom lañu la à savoir le 24 février Nous japp élection yi non au non non non au report des élections non au dialogue Dieu est avec toi Ousmane Sonko yalla yow la àndal wo ay soi-disant dialogue pour te tirer d'affaire yow ak accès militants Dieu t'a déjà tiré d'affaire te incha allah patience bi yàggatul tu seras libre et brun et comme neige incha allah te ça ne ça ne donc yow Ousmane Sonko yan na la yàlla sàmm maa lay ñaanal bu baax a baax yan na la yàlla sàmm yaa sa njaboot ak mbépp euh, bépp sénégalais waaw ñi nga xamante ni euh, sonn nañu sonn nañu sonn nañu si gouvernance Macky donc sama gars yi maa leen di nuyu peace love and harmony i am out Them now.